dellu santal Seexunal Xadiim di ñaan suñu Boroom tabaaraka wa taala fayal ñu ko waaye di dolli di gën a ñaanal Seex Muhammadul Muntaqa suñu Boroom yàggal ko fi lool te mu ànd ak ñur ba lim yéene liggéey lislaam ak njabootu lislaam mu àggale ko fu njortam ci bor Seexunal Xadiim dellu santal suñu Boroom baax bi mu may ñu dikkaat ci jataay bi ci barab bi ci ëttub M Media Group Nourou Darayni fas yéene indiwaat insha allahu taala al karim sunu émission bii di zaadu nisaa in muslimaati li nasihati al muminina wal muminaat doon jataay boo xam ne leen koy faral di waxee jataayu laayenti biir la waaye jataayu fàttalente la ngir li alquran karim wax ak li xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax mel ni jataay paase yépp noo ngi woon ci ndénkaan bi nga xam ne Sëñ Tuubaa daf ko dénk soxna Penda Jóob waaye ko mbooleem jullit ñi rawat na jigéen ñi ni noonu ko doon jàngat di ci jéem indi yi nga xam ne moom la ci bi jàngal euh, moom la ci jàngale ngir ku teg sa tànk ci jëfe ko te farlu ci te sellal ko waaye tomb yi nga xam ne moom la ci jàngale ngir koo xam ne nekkoo ci nga ban koo jege ko ci nekkoon nga bàyyi ko te sore ko te bañ ci saa jege ñeen ni noonu ko ba ak ci sippaandaw ka waaye bu fekkee jàngat nañu jëmmi ndinkaane bi ci boppam dangay gis ne ndinkaane bi dafa doon loo xam ne dafa matale dafa matale ci wàllu mbooleem ci nit waaye matale ci mbooleem jigéen ndax wane na ci won na ci soxna Penda Jóob won na ci mbooleem jullit yi rawat na jigéen nit ñu leen jigéen dafa war muñ war a war a mën a nekk ku war a mën a muñ moom jigéen ndax muñ moom war na ku nekk waaye nag jigéen def ci rawati xañ na duñ dikk ci yaatal bi ndax doon la bu ci nekk jël nañ ko yaatal ko jëm ko indi lenn ci lu ci alquran wax ak lenn li ci li ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax comme comme du jar na koy ji mu waaye daal won na ko ne ko jigéen dafa war a muñ jigéen dafa war a am ak ragal yàlla ci nga ngëbb nag ak ci lu feeñ boole ci jigéen dafa war di tuubal suñu borom subhanahu wa taala tuubu zahir ak tuubu baatin comme ni nga xam ne ne la waxee ne wa dum ala tawbati li kulli zaman min jamii al isyaani sirran wa na nga sax ci di tuub ci mboolem jamono yi ci mboolem li nga xam ne ay bàkkaar la yu nëbbu ak bàkkaar yu feeñ bokk na ci itam lim ko dénk muy loo xam ne ñëpp ko war a bàyyi xel rawatina jigéen ñi sunu jamono bii nga xam ne ci la nekk muy wax ko ne ko na sax ci di nëbbutu te it na te na ngay suufeel sa kàddu ci mbooleem jamono ci ndax nëbbutu alquran waxoon na ko indiwutoon ko ci biir wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruja jaahiliyatil uulaa akam naa bi jar ci yaatalaat ñëwoon nañ ci ci lu xaw yaatu ci biir jigéen dafa war di nëbbutu dafa war di nëbbutu di suturaal boppam di bañ ci génne boppam ci ëtt jigéen mel ni kuy wanteer boppam déedéet jigéen warutoon mel noonu kon jigéen te war di nëbbutu waxoon na ko ca saadatu tullaab walan tamaadi diina xatta tasturi jismika yaa say nibu bi taxammuri jigéen du am benn yoon diine ni dafa sujjuwaal aw yaramam nag lu mata bàyyi xel la lu mata mata jàpp la ne si jigéen ñi jamono yi nga xam ne ci la nekk kon daal jigéen dafa war di nëbbutu bu mu génn ci lu dul ne soxla soo xam ne soxla su par la si mënte ñàkk kon bokk na ci liñ ko dénkoon waaw bokk na ci liñ ko dénk ci na xam ne li fekk yaa ngi dund li fekk yaa ngi ci jamono di dund bul xool mukk jëmale wala nga jëf jëmale ci loo xam ne lu la amul njariñ ci sa dund lépp loo xam ne amul la njariñ ci sëg dund amul si njariñ keneen nga bul ko bul ko bul ko bul ko bul ko xool jëglu ci lu la amul ci sëg nag mooy loo xam ne amul la njariñ sëg amul njariñ ci dund ak keneen waaye loo xam ne xan na mën nga koo jëf nga tamit bu génn àdduna jariñ jariñu ci sëg dund waaye mu jariñ ñeneen ci sëri dund jariñ du lislaam gërëm loolu taxul ñuy wax waaye lépp loo xam ne amul lu njariñ amul njariñ keneen ci sa dund ak dundam nga ko xool jëmale ci te bul te say tànk ci nit bokk na ci itam dam ko dénk mooy watandiku jëw jëw jëw lu mat a moytu la waaye moytandiku rëy rëylu waaye nga sax ci di noppi waaye ngay muñ waaye nga moytandiku wax lu dëgg moytandiku njëstal ko naw say jëf ak ndikkital ak bañ benn jullit ci lu dul sabab bokk la ci nga sax ci di euh, dëggu nga doon ko dëggu waaye doon ko sellal waaye nga doon ko xam ne dangay euh, dangay dangay dangay dangay laayanti biir bi dénk suñu borom subhanahu wa taala bokk na ca lam ko dénk mooy bu sàpp topp suñu borom subhanahu wa taala ci lu nga sàkkoo topp sa borom kër ragal yàlla bii jigéen lu war a farlu ci borom këram ni nga xamee noonu la xadis ba waxoon ni jigéen bu wooree weru ko am natt asaka ma ngi dem màkka moo dem màkka topp borom këram war nga ne sàmm boppam topp borom këram su faatoo ñu ubbil ko bunti aljanna bu ko ci soob mu dal di dugg kon loolu bokk na ci dala koy may mooy nga topp sa borom kër bi nga xam ne borom kër bu ragal yàlla waaye tam bokk na ci def wax ne ko nanga xam ne jihaati jigéen jigéen a màgg mooy mu topp borom këram bu ragal yàlla ndax borom kër suñu borom subhaanahu wa jël texeeg jigéen aj ko ci borom këram waaye jël ñàkk texee di jigéen wala yasubillah aj ko ci euh, euh, ci ñàkk topp borom këram ko jël texeeg jigéen ak ko ci topp borom këram jël ñàkk texeeg jigéen ak ko ci ñàkk topp borom këram waaye kër bi nga xam ne mooy borom kër bi ragal suñu dégg dégg ci lenn caaxaan wala loo xam ne lenn lu mooy suñu borom subhanahu wa loolu moo tax mu ko na nga xam ne jihaadi jigéen ci topp borom këram ndax borom kër boobu kër boo ko toppee fu la gërëmee yàlla moo la gërëm waaye boo ko topp kum la xarabee suñu borom subhaanahu wa taala moo la xarab kon jigéen bu amee borom kër bu baax digg bu tege ci siraatal mustaqim kon dafa mel ni ak texeet moom jigéen yooyu mi nga aju si borom këram ak ñàkk texeem ak texey dem mi nga aju si borom këram boobu kon jigéen ko war a farlu dëgg ba ko borom joxe borom kër boo xam ne borom kër bu borom subhaanahu wa taala kon ginnaaw bu la suñ borom subhanahu wa taala joxe borom kër bu sell bu ragal suñ borom subhanahu wa taala nag ci jaamu su zahiran wa batinan su boobaa ma nga ca am ak kexe waaye bu am ak kexe si sa njaboot mën na ca jaare am ak texe ba am ñeneen ñu jaare ci ñoom am ay texe ay texe ay texe bokk mu soobu suñ borom subhanahu wa taala kon ci xéewal ak jigéen ngi gën a rëy mooy suñ boole ko borom kër bu baax ndax taxi gu sax gu dapetu gu yaatu lool moo ci ma moo ci ma nekk kon euh, wax ko ne ko lépp loo xam ne yaa ngi koy def wala yaa ngi koy wax xam ne jëmmi suñu borom subhanahu wa taala tax ay boo ko def ngir gistal ci benn nit bi de dem ba ca dem ba ca jaxantal lool moo wax mu ñu ngi xam ne na nga xam ne amul kenn kuy mucc ci bugalam bugalam bugalam suñu borom subhanahu wa taala lu dul ni danga bàyyi ñeenti jikko yi ñeenti jikko yi moom mooy lan mooy wax lu dul dégg ak rëy ak nay ak ngàmba kon képp ku bëgg mucc ci njëg ci ci mbugalum suñu borom subhanahu wa taala na nga mooy tendiku ñeenti jikko yi mooy wax lu dul dégg naka noonu rëy rëylu naka noonu nay naka noonu ñaaw jot lii di alak ab jaam kon njëntaan bi mooy alayka alayki bi sabri wa taqwa rabbiki fi sirri wal fa yaxfir laki alayka maa lay dénk la maa ngi lay dénk bi sabri ci muñ wa taqwa rabbiki ak ragal sa borom fi sirri ci lu nëbb wal ak lu feeñ fa yaxfiru laki kon si ngoo sa dala la duumi naga sax xana tawbati ci tuub bi ci farlu wala tamili bul jeng li si wa rashaadi jëm ci ludul ak du duumi nanga sax alal xumuuli ci di nëbbutu wala di kii wate sa turi ak ak suturlu wal tut fi di sawte ki dangay suufeel sa kàddu dëxëran diirub jamono uskar kon def na la sant laatan surit bul xool maatum ti feeg yaa ngi sax xayatin di dund ila gayri lasi jëm ci lu dul la nga xam ne taxliluhu illam ja xaddin ca la feeñ wal ah, wastani bi la xibata na nga moytandiku jëwu wal kibra na nga moytandiku ruy wasbiti sukuuta sax ci di noppi sax ci di bil kaziba na nga moytandiku wax lu dul dëgg yaa na nga moytandiku njistal wal mujba na nga moytandiku na si jëf wa sumata na nga moytandiku na nga moytandiku ndéggital wal bañeel wa asbiti na nga sax asidqu dëgg ma al ixlaas ak sellal wa nusxa ak laay biir tasfa danga tuubu bil ci ay jëgleel wala taru mi bul sakku taatallaahi topp yàlla bila taati sawi jikki ci lu topp sa borom kër attaqiyi zil ola borom kër bi yàlla wal taalami na nga xam anna jihaada niswati naka jihaati jigéen fii taati aswaaji mi ngi ci topp borom këram doona miryati ci lu benn mirante ndax waxay suma sawju radi an sawjati saay ba borom kër gërëmee ah, soxnaan radiya anha sum borom gërëm soxna sa ah, bi ñaamati ci xiiwalam ci xiiwalam ko amma isa lam yarda bu borom kër gu rëmut anha ci soxnaam abada ba faw wallay si yardallaahu suñ borom bu ko gërëm anha soxna sa samada ba faw wal taalam yi naga nga xam bi anna kulla ma sadar naka lépp lu gongeeku li xayri wasisil ci ludul ci ludul eh, eh, jëmmi suñ borom subhanahu wa taala fa hadar ay la faalam yi na xam laa yanju mucc ahadun kenn min asabillahi si mbugalam yàlla xataa yatruka arbaata ashya lu dul di dangaa bàyyi jikko alkasiba mooy wax lu dul dëgg wal kibra ak rëy wal buxla ak nay wa suu al sànni ak ñaaw subhaana rabbika rabbil izzati amma wasalaamun ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin kon bokk yi loolu mu nekkoon wasiyeet yi nga xam ne Sëriñ Tuubaa Ridwaan daan taala bind na ko eh, jagleel ko soxna Tuuti Jóob jagleel ko soxnaay mboolem jullit ñi ak mboolem eh, soxnaay mboolem jullit ñi ak mboolem buur yàlla yi ku ci kenn ku ne cër ban ca am nga jël ko ci insha Allah taala asalaamaaleykum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 الحق من باطل أبدته فجار